pilote bi ah, leen leen wax ci code de la route à cinquante mètres da ngeen a war a wàññi. man dawuma dara. waaye dawuma dara mooy lan jox ma papier yi. mission daal laay dem. Eh, man sama yoon néew ci mission man kayit son laa xam oto bi ban année la wàcc Sénégal xool si kayit yi. koo yaa ngi may femm de. Oh, ma la son laa nekk rek. waaw lii nga sens sa wax bari ji waroon naa fekk say papier matul. kon danaa la denc dootoo génn ay ca dafa nga ne li oto di démarrer muy xiiru nii ay na waa ay ca eh fayal oto bi indil carnet d'entretien bu oto bi. mu ne ma bi rek laa yor. ah dañ laa attesté. dañ laa a def def na ne dañ maa attesté. tàmm ngeen lii fu ñu waxee maa attesté dañ ma attesté jox ma la attestation bi. test toppal fële. ah ban problème nga am. ma papier bii laa naan may dañ maa attesté dañ maa nangam nangam. tàmm nañ ko ah. ok contrôle ma oto bële xoolal ma oto bële ma ñëw. ok waay. yow nga dañ la attesté yow. ana sa permis de conduire. sama pièce yëpp lañ attesté. kayit boobu lañ ma bindal. kayit boobu laa booy boo xoolal booy boo fontoo de. oto da la di xanaa attesté nañu jël sa permis tee ko wala jël carte grise si oto bi wala jël vignette bi wala jël assurance bi wala jël carte grise bu ma fonton ah. mais dégg nga ba booy wax nga ciy teg baat la ma du ma sa morom ah. xam naa sama droit ah. nga dama yuux ak gën maa xam sama li may liggéey. dafa tàng te dañoo nekk ci weeru koor. chef wala libéré ma këyit bi rek bàyyi ma ma. Ah, ban libéré ma këyit. léegi daal mën naa la bàyyi nga dem loolu du dara mais xam nga tamit comme ci weeru koor lan ne booba kon nga bàyyi fi lu mu ndogoo rek. ndogoo ci ban fànn. dégg nga ma dofoo yor ngay nopp. alors ndogoo rek nga bëgg. waaw. mais mais yor ma jeton. bon booy eh. yor ma benn pièce. te dañoo wóor dañoo wóor dafa tàng seen tamit bàyyi ma la nga dem. dafa tàng te dañoo wóor. lambal dara ma bala nga dem mënoo koo mooy loolu. mais nan nga def ak nan nga def ak kii seet. laaj ji. war ko toll ci boo ko eh, soo bu neex a. waay am doole bu baax. ci ko waaw boo doon noppi koy wax lii. weeru koor bi ki boobu la ko joxee xanaa di nga baax. benn bi kese nga ci sa beneen bi laa ko joxoon. kan doy. oui. doy ma jox ko. non baal ma jox ko. ni ma jox ko ma jox ko ko. baal ma jox doy. baal ma téye sama soow woon ko mu ma jox ko. waay boo teer wéy bi daa am lu mu lay bëgg a may ko doy sax soxlawul yooyu. lu may bëgg a may rek ba kii ko a la quoi genre kii la affaire yii di. nga yor nii lan la de beneen bi la la bëgg a may quoi boo jox ko doyen ni. yaa eh, doyen. waaw. mais kii yow laa ko jox pour nga dogoo lii lan la. xanaa xamoo soow bi yow xam nga soow bu baax. xamoo kii yow xamoo ko in ba téye ko garaaw bàyyi ma. non bàyyil bàyyil. defal naa rek doyen bàyyi ma ko bàyyil ma la. booy bu ñu fontoo waay ay ay ay mbuus yi nga xam ne koy doyee. booy man nga dem booy. jaajëf yor marque bu tel nii di joxe ay ay ay mbuus rek. waaw dama lay expliquer gis nga soow bi. waaw. ci dolli ma la dolli ma. ah soow la. waaw soow la. ah soow la te moom soow mu neex la vraiment mais yow xam naa ne. waaw bari woo looy naan soow baal ma jox la 2000. mën naa la jox ñeenti téeméer. waaw nga jox ma mbuus bi bu ko defee ma mën a mottali. tey laax laa toog kër ga. nga jox ma 2000. ah. yow per yow per mu génnee ñeenti téeméer. waaw. cim soow. waaw. libéra ngi ci léegi bàyyi ma yóbbu ko kër ga rek waaw bàyyi rek ba jox la 2000 nga wala damaa togg lu laax. waaw te xam nga laax soo mi moo ci baax. bi moo ci baax. nga laax ak affaire yooyu noonu xam nga joo bi moo ci baax te léegi man damaa togg lu woon laax ca kër ga pour ndogu léegi te benn pot ma mate. léegi jox baal jaral na ma ko. dama lay mayaale mii li rek dama lay mayaale soo mi yaa ngi koy nag te mën naa toj. léegi ni ñuy def mooy gannaaw dangaa togg lu laax te yor nga potu soow 2 millions yi jënd ko soow man ko yóbbu kër waaye doo ma jox dolli ma dama koy yóbbu kër ge ma koy yóbbu la yóbbu sa pet ma yóbbu sama mbuus waaye lekkoon bokk yaa ngi sa yoon nekk ci man lan ko may mayu ñu ko siise doo doo ko ci ah. may yow ci ba sa xaaju pot jox siise sama xaaju pot ah ma ne sama xaaju mbuus eh, per yow lañ ko booleeg man kay jox ma ci bu la bu la doy doy jox nañ ko ñaari mbuus benn yow benn moom dawal topp ko dawal. dooma dolli ci lii man toppal doye.